ñu bàyyi ko moo tax ma jàpp ni aussi tey Diomaye dafa am benn devoir mbir mi warta yéex parce que euh, ña nga xam ne ñoom la bokkaloon dungu siin bañ ko jàppee mu génn euh, nekk président de la république mais yaakaar dafa dal di judd ci ñoom pour ñu humaniser donc ma jàpp ne ma jàpp ni ay mesures forte la waroon teg leneen aussi li may regretter tey ci démarche bi moom mooy ñaari mbir bu ci njëkk moom mooy depuis Senghor laa doon wax mais am na kenn ku ma jubanti ne ma depuis 58 temps ñoom la Gueye ak yooyu c'est la première fois ñoom benn gouvernement bi nga xam ne avocat bokk ci <laughs> y a pas un avocat <laughs> hein y pas un avocat ça c'est un premier constat deuxième bi moom mooy tey aussi dama jàpp euh, problème mu justice bi priorité la mais tey dëkk bi lu ñu dund comme violation des droits de l'homme ñaata nit la ñu yàqal fii ñaata nit ñoo dee ñaata nit ñoo am ay disparition forcée maanaam ñi nga xam ne dañu réer ne mër kenn xamul ndax dee nañ wala ñu ngi dund d'une certaine manière bu réew demee ba dund situation bu mel noonu dama jàpp ni bu ñu taxawalee gouvernement Macky Sall amoon na secrétariat d'État aux droits de l'homme au moins à à défaut nga teg ministère des droits de l'homme di nga teg benn secrétariat bi nga xam ne mooy saytu yooyu parce que tey bu ñu confondre ministère de la justice ñoom ils pense plus du côté maintien d'ordre parquet truc yooyu tout ça organisation avancement des magistrats mbirum droit de l'homme yaa moo ko gën a xam beneen logique la conviction la humanisme la leneen ngay demee donc yooyu tey moo tax ma jàpp ni am na correction yi nga xam ne en tout cas peut-être si euh, discussion yi nga xam ne ci la ñu jëm euh, ce sera l'occasion de les poser euh, en tout cas ou même de le poser par procuration <laughs> parce que y des éminents représentants que coalition bi dem fa ou pas c'est le plus important mais avant ñoo dem en tout cas ci volet législatif bi yooyu foog ñu dugal ko. Diomaye ci liste bi ñu gis bokk ñu bon xam naa dinañ ko parce que bon. ils sont au cœur peut-être gars yi dañu jàpp ni euh, boo bokkee ci xew sa yëf kenn du la ci woo ci li ma jàppee mais ñoom voilà mais parce que yenn cérémonie yi dem ñun duñu dugg ci ay liste ak yooyu mais bon c'est pas grave pas le plus important mais en tout cas lu ci mënti am Euh, en tout cas réflexion yooyu laa ci def par rapport ak tolluwaayu réew mi pour répondre en tout mm. cas ci situation carcérale bi pour jeexal moom mooy tey gis nga ko finalement suñuy prison xam nga prison nit ñi dañu foog ne ay correction la mais mm. mais gis nga see dañ ko war a baare mm. maison d'arrêt point tey correction châtiment corporel amul amoo droit sax wax nit li ko wax d'une certaine manière kooku logique coloniale de la prison la avec on est à l'ère des droits de l'homme le droit international est à l'ère des droits de l'homme euh, waxuñu la sax ni nga dem di ko xutba amoo droit xutba ko kooku mooy suñu système d'une certaine manière ba bu nga koy mettital donc maison d'arrêt la ña fa nekk tey benn droit rek la ñu tënk c'est la liberté d'aller et de venir tous les droits de l'homme s'appliquent pour ñooñu d'une certaine manière moo tax tey <laughs> foog ñu xam mais mais foog ñu xam secrétaire d'État des droits de ñu bëri hmm. y compris ñenn ñiy liggéey ci kii xamuñu logique u carcéral donc logique carcérale bu ñu demee mu am humiliation euh, ñu bafouer sa dignité d'une certaine manière que ñooñu ils sortent avec une haine viscérale contre le système et contre le peuple qui a rendu d'une certaine manière. manière générale. Il y a euh, et finalement prison bi ci boppam dañuy dépenser di yóbbu ay nit yóbbuñ leen pour yóbbu leen. dañ teg da bannissement la maanaam da nga ñëw nga am comportement bu nekkul yoon mu ngi mel ni boo yoree say doom rek nga ne ko puni nañ taxawal fële yow da ngay génn ci ñun toogal bu sa xal dellu see nga duggaat d'une certaine manière mm. léegi ñooñu bu ñu demee xalaat dañu war a fexe teg leen ci ay conditions yi nga xam ne seen xel dina dellu si mais tey bu ñu ñëwee dugal leen ci métital ci primate ci réprimande et tout ça. Hmm. mais finalement euh, logique gu bi. li nga xam ne da ngay tuub hmm. jéggalu ñëwaat. Hmm. mais da ngay jënd ak benn inde tu veux détruire le système wala dootoo bul faale ngay dundee d'une certaine manière. finalement. Euh, dañu am benn fourre-tout carcéral parce que dañuy jël ñëpp sànni leen ci biir e loolu au lieu mu am rédaction boo génnee <laughs> yow dootoo faale dara parce que def nga prison d'une certaine manière. Ah, ah, donc ah. finalement prison dafa perdre sens am dafa perdre finalité am dañuy dépenser. pour rien mais c'est pas un problème de dernier point hmm? de de de hmm? d'information et de communication.